gaynde bi ci drapeau bi waaw bi ñuy wane nan ay foofu xam nga drapeau bi gaynde bi ci drapeau bi non waxuma la ah, gaynde national bi grâce a Senghor vert jaune rouge bi ñun la Sénégal la quoi ñun nit ñi nekkul ay ay toile yu nuy defar mais lii ay morceau la morceau verte la morceau mais c'est symbolique en fait taxaw rek ay morceau taxaw rek foofu ngay bëgg a dégg damay rek frappez les balles à fond. Les noirs nous arrosés. Les noirs nous arrosés. Les noirs nous arrosés. C'est des pas dans la brosse. Soleil cassé, c'est toi. Soleil cassé, c'est toi. Pesez tout vos colas. Reprenez la sombre. Je suis épaule. C'est épaule, je te fais, c'est fait cette année. Salive. Africa. mais. <laughs> d'accord tari nga ba pare. Pawlish foo jàngee national. Kennedy laa jàngee sa première année ma dem am xam exactement li muy kaas est-ce que moom xam na exactement la muy devise su Sénégal. xam nga ñun mënuñu ñun mënuñu dimi la mooy devise Sénégal rang muy gaaw. waaw ñun mënuñu wax lépp te nit ñi mënuñu ma xool kii ah, lan mooy devise su Sénégal man dama wax lu leer avant de parler il faut référé yaa gën a xam. day am na yoo xam ne bëggatuma ko géem bébé du Sénégal ak leneenu Sénégal nanu xam ne ñëpp ay sénégalais lañu <laughs> mais wax day am commencement tamit mënoo ñëw. ay dëgg la mais dëgg la wax dëgg la nga xam ne ñun ñëpp ay sénégalais lañu. mais bii it ci diir jàng na. non rek leen li muy wax lii dëgg la yéen nag yéen nag yéen xam ngeen lu wax xam nga ni wax dama ciy participer. ñuy ñëw parce que c'est trop intellectuel. waaw d'accord arrêté fee waaye yow yow tu parles avec non non non voilà yow yow dem na kenn kenn laaj boobu yow yow waxal yow eh 10 000 lay laaj 10 000 da ngay seeti nday sa baay nga def ko góor. yow sa baay gën a góor a nekk eh, def def ko. yow sa baay a ngay géem géem ko. li may géem nekk ci eh, ma laaj la question lu ma def man wala ma da ngay génn plateau bi de. maa la gën a réew de booy. yow réewoo maa la gën a réew. waaw Pawlish la gën a réew fuuf. loolu su ma la intéressé intéressé ma. ba wuy sa peleñaang noonu. sa morom mi ngi noonu. parce que di ngeen turóo yéen ñaar. naka ñëw naa. sa morom noonu.